terminer ak euh, Rangou euh, gis nañu sortie ba mu defaat euh, di wax ne ne waraaye defaat soit di daf koy def te aussi luñ koy tuumaal nekkul ci moom dafay liggéey am na yoo xamante ne nii mu ngi siy yëngu waaye nanguwu ko wax ba xam na yéen heure bu defaatee soirée privée da ngeen di topp comme ni ñu ko doon toppee da ngeen di jógaat di koy topp ci yoon ak li ni mel. waa Rangou jot na vidéo bi ci interview bi mu defoon ci seen naataango DTV. au micro de Soxna Zeynab Bamba voilà man nag asgor gor laa euh, ndax euh, euh, ba mu fi yëkkate kàddu yu jéggi dayo yooyu ne parent pa Jamra bii amul lu mu wax du gëj suma kër ma di ko suppu kànjal di ko defal ay njaru soow <laughs> di ko présenté sama ay copain góor jigéen maanaam li Jamra di xeex yépp daal alors xam na li ko ci naroon fekk gis ngeen ne sa ëllëg sa def na vidéo doon jéggalu après ci laa dem ca ya ma ne ana suñu plainte ba ñu déposé woon contrat ñu ne mu ngi fi ma ne dimbali leen ma ngeen xotti ko ñu ne ma ah ma ne ah parce que ñu bari dañ ma woo nee ma yéen Jamra da ngeen di woote diine kii tooñ na jéggalu na te yàlla ku ko jéggalu sax mu jéggal la ma ne wa kon jéggal naa ko moo tax maa ngi préciser ne le fait que mu tëdd kaso du man de man baaloon naa ko ba xotti plant bi waaye police ñoo ko baalul loolu mënuma ci dara voilà léegi génn na kaso euh, déglu naa vidéo bi yónnee nañ ma ko interview bi mu def DTV as gor laa nag waaw wax na kàddu yu rafet jëmale ko ci man ndax nee na mu ngi doog a xam ni euh, coow li ma amoon ak moom yëpp pour njariñam la parce que nee na maa ngi nii man Rangoor lu bari génn naa ci yu bari yu ma daan def waaye détaillé nag nee na yu bari yu ma daan def bàyyi naa ko euh, daal di ma gërëm ci loolu wax na leneen itam loo xam ne man xaw ma ko woon nee na ci côté yaayam ñoom ci lebu gi lañu bokk jaween ñi ba yaayam expliquer na ko lien de parenté yi dox sama diggante ak ñoom ba moom rangu xamal na ma ni ci émission boobu ci laa ko yëgee que yaayam nee na ko man mii sa yaay jarbaat laa ci moom kon bu ma nekkee jarbaat ci maxtaar yow mi rangu bi mii sama doom sët nga ci man sët nga ci moom alors rangu nee na nag dana ma seet si d'abord maa ngi koy gërëm ci kàddu yu rafet yooyu mu wax euh, di ko ñaanal ndax àdduna ku ne da nga am sa ay jaar-jaar tubaab dafa wax ne commettre une erreur euh, n'est pas mauvaise en soi mais c'est persister dans l'erreur qui est diabolique waaw comme que dem na ba gis ne àddunam àdduna day avancé dégg naa ne rangu yaa ngi dugg ci ay euh, wàllu di yëngatu ci wàllu koom donc des actions euh, des activités génératrices de revenus mënuma dul ñaanal la ci ndam ndax yaa ngi voyager Dakar Dubaï et cetera ñaanal ko yàlla jàppale ko euh, parce que déjà wane na ne nit ki mën ngaa daan sa doole am sa sutura am sa teraanga te du xaw yi sa sutura voilà kon nag dégg naa kàddu yi nga wax <laughs> nee nga danga may seet si euh, seet si sa maam ñun dañu fonk mbokk te sa yaay xam na ci dara ndax ci libre bi la askano Euh, mënuma dul rek ñaanal yàlla taxaw la jàppale la euh, musal la ci seytaane dégg nga ndax léegi dootoo xale yaa ngi jëm ci mag euh, bu ko defee nag yu sew yu bari la daan dikkal coow nga mën ko bàyyi ndax ni ko ko Kocc ma di waxee rek loo gis ci nett lay mujjee kon na yàlla yàlla jàppale la yokk sa taxaw la yokk sa wërsëg mu yaatu lool ba ñëpp xaj ci incha allah Euh, tàggatoo ak ñu la doon seetaan gannaaw bañ waaw waaw tàggatoo bi day euh, waxaat la rek ndax réew mii ñun ñëpp ko bokk euh, yéen ñii fi ñëw tey Jamra gënu leen dogu pour luy defar réew mi te bu leen nangu kenn ëppale leen ci ay jéego ngir réew mi defaru alors ba tax na ñun mënuñu dul rek baamtuwaat ni yàlla dafa baaxee senegal ay mag ñu baax ñu tëdd Touba Tivaouane Njaasaan Canaba Ñaseen bàyyi laa Laayeen famille Omarienne te ku ci nekk ci ñoom bi ngay laatu wi ji sa borom barsax jëf nga bàyyi fii bind nga bàyyi fii wax nga bàyyi fi kon ameel nañ leen jukkal te comme que mënuñu leen fay boro ndax ku la xamal xaala laahu yàlla nee na xaala rasulullah yonent bi nee na boo jógee ne danga ko bëgg a fay boro xëy na waxi taalibe bu xër la rek boo doon liggéey ngir dund di leen ko jox it du tax nga dab bor bi kon li ñu mën mooy delloo leen njukkal ni ñu leen mën a delloo njukkal mooy li Jamra di def rek depuis mois de février 83 bi ñu ko créé c'est-à-dire 38 ans mu di joxante loxo ak suñu mbokki taalibe séq ndono lu rafet li fi Bamba Maodo Baye Niass Baye taxaw temm nag fas yéene ko aar ba ndono lu rafet loolu ku ko bëgg xajamal mbaa nga bëgg ci xëpp suuf ak koo mën a doon lobby homosexuel lobby maçonnique ak lobby financier yi làqatu ci producteur de série fii jàllale mbon koo mën a doon ñu jog jàmmarlu ak yow mu jaral ñu lu ne léegi ñu ngi sant yàlla bi nga xam ne Jamra wéetatul ci xeex bi ndax gis ngeen le 23 mais ñu nag kuréel bu ñuy wax ànd sàmm jikko yi ñoo àndoon def taxawaay bu rafet fii ci place Obélix ma fàttali ne ànd sàmm jikko Jamra membre fondateur la ci ba ñu koy sos en 2017 fii ci daara oustaz euh, Adama Seck euh, le secretaire général de l'association des des, des des fédérations de la de, le secrétaire général de la fédération des associations de écoles coraniques foofu lañ ko sose boobu bariwuñu woon professeur Cheikh Oumar Gueye ngi toog Abdou Karim Gueye nitu dëgg ngi toog oustaz Makhtar Sarr Akhirou Zamana ngi toog ainsi de suite matuñu woon dix waaye léegi gis nga ànd sàmm jikko koy dem na presque cinquante organisations ligue des imams et de oulémas mu ngi si le rassemblement islamique du Sénégal a ngi si Jamra ngi ci ba ci des organisations de la société civile yu mel ni CIS le le le collectif euh, des intellectuels du Sénégal bu professeur Malick Ndiaye kon bari nañu kon nag Jamra ngi sant yàlla wéetatuñu ci xeex bi parce que 83 85 ñun rek a fi newoon procès franc-maçon yi di ñu traîner devant les tribunaux ñun rek a fi newoon léegi wéetatuñu xeex bi kon nag bu yeboo lobby homosexuel yi xam ne. amatuñu affaire ak Jamra rek mais à une cinquantaine d'organisations ñu ngi ñaanal suñu coordonnateur ànd sàmm ji koy euh, imam Ababacar Mbuub wér ndax ba mu jógee ci xew ba gis ngeen ko maa ngi ko doon laaj doom baayam Ado Mbuub waaye dafa mel ni dafa jële fatiguement moo tax ma ne ko na retiré wu jël tuuti congé alors euh, kuréel boobu ci la Jamra bokk parce que ni parti politique amee coalition léegi organisation socio-religieuse yiy xeex ngir aar ndono lu rafet yi mag ñi baax ñi bàyyi ñun tam dañu am coalition mu tudd ànd sàmm jikko yi te imam Ababacar Mbuub ñu doyloo ko ci teeyam yaram tegginam ak xam-xamam ñu nomee ko muy coordonnateur ñu muy ñaanal yàlla sàmm ko yàlla dimbali ko dëgëral taxawaayam alors pour que pexe seytaane yi ñu mën a bokk ci ñu koy nasaxal yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi yàlla na jàll ñoddi fanu suñuy wasila kilifa diine yi te toftal ci wér yàlla na yàlla làq Sénégal fu yàq yeggul asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf